damaa yu ko mooy lan mooy la yónent yi li yónent yi defoon inna laa shtara minal mu'miniina amwaalahum wa anfusahum fi sabilillah yónent yi defe naa ne saaba yi noonu lañ jaayante woon laqad radiyallahu anil mu'miniina idh yubayi'uunaka tahta shajarata fa 'alima maa fi quluubihim dafa naa ne saaba yi noonu lañ jaayante woon waaye nag ñi àndoon Sëñ Tuubaa dañoo jaayante ñi àndoon Sëñ Tuubaa dañoo jaayante kenn ku ne xam ne maam si Anta Mbàkke dafa jaayante ak borom Tuubaa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 toog na fii sëñ Saliou Mbacke di wut lu gerte mu digg si maa ngi gerte keroog bi nga xamee digg ab noppam te fekk moom amoon na gerte goo xam ne dañ ko bay dañ ko bay jox gun ko sëñ bi ronga mañ ronga ñi dafa sotteeku keroog na man wur maa yor dara loo xam ne français ma wax te fekk sëñ Tuubaa soxla ko noonu lañ ko noonu lañ ko saas ko sëñ sëñ Saliou dafa dem dafa tàngoor kenn ku nag xam ne li ko sëñ Abdoulaye Mbacke liggéey lu moom suñu roqi fii ci Darou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 xam na waa Daaru ne xam na seen digg sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Fadal Mbacke la ma waxoon mu ne million dama ko daan dig waaye million bu ñu takk sama loxo bii laa ko ci sama loxo bii ci ci loxo sëñ Moudou Maam laa ko njëkk jot kon sëñ Balla mu dañuy gàttal foofu rek tey kon ku ne xam ne juróom-ñaari penc kànk yii kenn ku ne xam ne maam Cheikh Anta Mbacke fa la bàyyi ko danaa wax ne fii de bu ñëwoon kenn ku ne na dale fu ñu jugoon du ma dellu may ci xurwa xurwa de ko déggee mooy boofil mooy dëkk bu rëy mooy caawéen mooy yaañ mooy ndiliki mooy afe foofu mooy xurwa maam Cheikh